alhamdulilahi rabil alamin arahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin wa sharri nafathati fil 'uqad wa sharri hasidin idha hasad qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri wasawsil khannas bismillah bon jéema cee rek sànni ay kaddu ndax mag ñi moom wax dëgg yàlla tuut nan ci xam leen ndax ay jëm yi nekk fii ay jëmm lañu yoo nga xam ne fii day lépp loo nga xam ne fii àndul ak suñ borom day musuñ caa wax dara ak noo mën a mel ak foo mën jóge ak luñ la tagg-tagg ak luñ la soow soow boo àndul ak yàlla mën nañ laa muñ ñoom daal defoon nañ nit ñoo nga xam ne fii lépp yàlla la ba loola moo waraloon ba ñu nekkee Kajoor xumbaay ba mu xumb ah xumbaay ba Kajoor xumb loolu moo taxoon ah Lamine ne léegi nañu gàddaay ñettaati ati biram bànga ci la demel biram bànga kuli ci la ñu sanc cëkkeen léegi ba mu ba mu ba mu takkalee fële am petax ñii am picc ab téere muy naaw di naaw di naaw ba ñëw fii fekk fii ju sant zama muy maakuma sama ñu yor fi sàpp wëteen mu ne leen mu ne leen man dey dama bëgg a dëkk fii ndax si ba picc mi ma doon topp di fii la dal ñu ne ko nun day dëkkandoo moo nu gënal ab àll mu ne leen waaye nag ñu ne ko nun day bu nu sañoon ka fii dëkk de wax dëgg yàlla dana nu mus suñu jur gi ñu cedda yu koy fab danañ ci mucc mu ne leen man day fu ma dëkk cedda du fa jëlee fi kenn fu ma dëkk daal ne leen wër ne yàlla ànd na ko ba ko defee ñooña daal di d'accord ci ma loo ma daal di dellu dellu ca dameel ne ko man de wax dëgg yàlla gis naa petax ma topp naa ko ba génn guy gu mag sàpp bu te nekk fa ñu sant sama ñoo fa dëkk laaj naa leen ñoom daal d'accord nañ ci ay kàddu mu ne ko léegi foofa am na nag sanc bu fa ne mun ne ko foofa mooy bindiw jaaji lañ koy wax gu fa fa ne mu ne ko boo demee na ko laaj fu mu yem fu mu yem nga taal daay fu daay nga àgg rek yaa ko moom waaw ba mu ko defee mu daal di ñëw laaj góofat ne ko yow a ah, yow foo yem waxal li nga fi nga yem ci àll bi mu ne ko man soxla wu ma àll sama buntu fetal doy na xam nga ñoom boobu ay ceddo lañ maam Lamine daal di wéeru ca daqaaru jàjj ga daal di taal daay bi mu taalee daay ga daay gi takk ba dem cuuruur ba jaar fi warak fekk ñuy baar bañ ko mu lakkaale seeni baar ñoom itam ñu dem ca dameel ne ko sëriñub cekkeen bi day lakk na suñuy mu ne leen yéen ay sàmm rek ngeen fu seen i juti fu seen i joti doy na leen ñooñu daal dina ko waawaaw loolu moom dëgg la mu ne leen danañ leen ngatal ak ay saawa goo xam ne fu mu àkk yéen ko moom muy tool yi war ak yooyu ñuy wax sàmba silawlu mu daan leen di ngatal ñu wéy ñuy wéy di wéy di wéy di wéy loola moom la war ak moomoon léegi nag too lakk googee ba mu jógee fii di taal di takk ba cuurur lépp ci cekkeen la woon mu dellu ne ba lakk Samba Sadio ba mu ko defee mu ne ko mu dellu ne ko ah daay ga sori na mu ne ko yax ba mbow ne ko yax ba mbow noonu ma fu mu yegg yaa moom mu lakkaale kooku yooyu ah lakkaale foofu yëpp yàlla dogal bi mu sañcee foofu nag e mu nekk fa ba ca déwén sa ah mu daal di nekk léegi soos am soosam jëm si fii fekk boobu am na daqaar gu fa ne ñu ko wax tanaxus waaw bu fa nekkee ba ngoon su bëggee xéewli bu bee am na ndab loolu dañ ko ko fi tegal mu xéewli ci am nag satlaam làmb ko fi tegee day yeewu fekk fi mu ndox mu jàpp def lépp xam gaay xanaa ñee ñoo ko fi indil ba mu ko ba muy def def noonu ba yàgg nag ba mu defee noonu ba ne day ñibbi siwaat fii nag la soos am soos ba mu ñëwee fii nag ñu ne ko sëñ bi foo jógee woon mun leen topp leen sama soos mi ñu topp ko dem fekk mu saq fa mu semb fa ñaari ñaari njuróom ah loolu xam nga kéemaan la ñu ko <laughs> ñu ne mu fekk ma ñaari njuróom bañ ko fa bañ fekkee mu sem fa ñaari njuróom mu ne leen daqaar googee nag na ngeen ko warmaal bu ca kenn xus bu ca kenn dagg bu ca kenn laal dara ba tey daqaar ga ku ca laal dara gis ko matt ma sax ku ko masaan xam da nga ko gis fi saasi muy tane xus mu daal di cekki ba ba cuurul amee fanweeri at la Demba Lamine jël Matar Numbe sancal ko kooki daal di sancal maa kumba belal ñu ne ko sa ñaari xale yi ah yow sa ñaari doom yi jege nañ la de xam nga ñoom dañoo am doole mu ne leen wëllu du sori na ne weenu ndey ja lii la leen wax bañ defee noonu nag yàlla dogal ba mu dikkee fii nag fekk Malick mu daa dem na ko nag Malick damaa bëgg ñoo bokk ndey ak baay mu ne ko damaa bëgg nu ñibbi damaa bëgg nag léegi fee ma gis neex naa dëkk te fii moom tëgg me xumb bi ëpp na ay ceet doo xam nga bandaañ boobu dañuy tëggu ah mu ne ko nag daa mu ne ko bañ waxtaan bay mu ne ko may ma may ma ba jamono bu jamono jotee ma ñëw yàlla dogal ba jamono jaataan joj mu faatu mu jël ay malik indi ko loolu histoire boobu noonu la demee muy doomam waaw nga xam ne doom mu baayam ñoo bokk ndey ak baay xam nga ñooñu benn la amul lu ñu fiy wax kii fee la kii fee la ñaar ñu bokk ndey baay amul kii lii la amul kii ñëpp benn lañ amul gën a amul gën a fort ah du dëgg loolu loolu moom xam naa ko ci histoire bi. naa toll ci ay ah, xayma daal mënuñoo xam. ci am na ñuy wax juróom-ñett téeméer am na wax juróom-ñaar waaw. ci ñu nekk nag maanaam cosaan euh, xam ci fi tëdd ay. maanaam ñi fi tëdd jëmm lañ yoo nga xam fii kenn ku ci ne alim la ah fi tëdd laa la wax de coomo amu ci. ki nga gis ñu samp fa bant ah kankoore la ah sampali salaan ay kankoor lañ te itam dara ñoru leen woon lu dul yàlla bàyyi aadi joom nee na àllub cekkeen la fa waay mu nangu bay mu nangu ndax gajj gu ab kaaj ab ab ab ab taxaw na fa di tali alxuraan waaw muy jikkoy mag ñi ñoom soxla wuñu woon ay lekk yu neex ak ay étage ak ay oto soxla woon dara ñoom daal si bëgg-bëgg moo doon yàlla rek lu dox seen digg yàlla ñu bàyyi ko fa féete ak yàlla loolu moo doon bëgg-bëgg mag te ñoom ñëpp nag dañ cee maase woon amul xëj amul seen ñu lenn jëm ci lenn lu dul yàlla rek moo tax kon nag ñii ñu fi bàyyi a war a góor lu jëm ci loolu ba tey kon yéen lii ngeen def ah lu rafet la lu baax la ñëw di dundalaat dëkk bi di ko dekkal ndax dekkaluk bokk ah li ci ne yéen xam ngeen ko jàng ngeen. Hmm? kon nag léegi loolu yàlla yàlla mi nga xam ne moo mën a taxaw yàlla na leen ci yàlla taxaw yàlla na leen ci yàlla jàppale ah képp ku ko nar a doyee dal moom ah na nga na nga dem fële doyee dal sa bopp rek tabañ ñu cee boole. waaw ah, yàlla moom yàlla na yàlla na yàlla jàppale rek yàlla na yàlla jàppale leen waaw bi jaay Muhammad Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ak barke mag ñi tëdd fii mag ñi coomo amu ci de ndax lépp lu nisër fii boo legee nga gis ko fi keroog ba ñuy wax fee ay tëppi ci sunu jumaa ji ci sunu jàkkee ji ñaari fan la ñu am ñu yónnee ñu ay tëpp tëpp yaa ngi ca biir Maodo yónnee ko fa te booba dañ koy xalaat rek jënduñu ko ak yeneen ak yeneen biñ nekkee fii naan am machine ak yooyu gis geen rek kee dawal ba ñëw ba mu dikkee ñu wax mu ne cee cee kenn laay jox machine ak yooyu yëpp kon nag ñu na ne sunu xe sunu xeewali maam bu nu ko xeeb waaw jërë ngeen jëf.